daf ne eh dañ leen seen temps suñu yegg seegul de suñu baale ci kaw ñu ngi ci kaw suñu baale ci kaw